défendre ba ñu jàpp ni daal comportement boobee nekkul la ko fa war. waaw taxawaay bu siggil képp koo xam ne sénégalais nga rawati nga képp koo xam ne africain nga parce que parlement je parle sous le contrôle du de l'honorable député euh, Ismaïla Diallo euh, ñëpp xam nañ ne assemblée nationale du un long fleuve tranquille li koy définir sa par essence mooy pencum ndaw réew mi lañ koy wax ndaw yi ñu fa yebal nekkin gañ fay nekkal ni muy agité wu ak ni muy yëngatu ak ni muy xumbee loolu dafay marqué ñëpp. mais tamit tegu ci ay kàddu yoo xam ne dëgg ci dëggalee lalu ak yooyu noonu yëpp moo waral tey jii taxawaay ga mu am fële tey jii euh, ca euh, Abuja ñëpp rafetlu ko ñëpp war koo dooleel ñëpp war ko encourager parce que fii dañu nekk ci dëkk yoo xamante ne dafa mel ni dëgg dafay déranger wala baaxoo ñu dégg li nga xam ne mooy dëgg li mu leen di wax cat ba amul fenn fu ñu nee Guy Marius Sagna fu ñu diffamé amul cest à dafay dëgg yoo xam ne ñoom seen bopp xam nañ ko waaye bëgguñu koo dégg xam nga tey jii ku nekk boo boo boo sañee taxaw ci penc ni maa mën. wala nga dem sa soxna ne maa mën ci koñ bi waaye boo boo boo wéetee di nga xam ki la mën wala kan ñoom ñoom ñoom seen seen biir xam nañ li nga xamante ne mooy seen ay ah. xam nañ li nga xamante ne mooy seen ay errement xam nañ li nga xamante ni tamit ñu ngi koy def te jaarul yoon kon boo gisee tey ji mu taxaw wax loolu mu mu choqué leen gaañ leen mais Afrique li ko appauvrir loo président yi la mais ñan ñoo fi signé contrat yi président yi ñoo ko fi signé ñoo ñooy jël suuf si di ko jox étranger yi président yi la ñoo ñooy jël seen euh, xaalisu dëkk bi ñu di ko sàcc di ko rawale bitim réew président yi la donc kon loolu mu wax noonu pour man dëgg gu dëgg gu wër péng la amul dara lu ko mën a dindee. dafa touché là où ça fait mal. exactement beneen mbir bi am tamit mais noo mën a comprendre imbalo ñu teg benn assemblée nationale six mois après mu dissoudre assemblée nationale bi. assemblée nationale boo xam ne PAIGC moo ko moo ko moo ko amul majorité yóbbu ko yóbbu yóbbu ko ci euh, cohabitation. nga tas ko euh, si ay si ay si ay si ay euh, prétextes yu fallacieux yoo xam ne tegoo ko fen léegi loolu amul benn état bu CEDEAO bon CEDEAO bureau bi defuñu communiqué wala leneen ak leen ñaaw li Embalo def dañoo toog jàpp seen ñaambur te or si c'était ay gars yoo xam ne ñu ñëw këf nguur gi ñëpp daggandoo taxaw fële ni li ngeen def pour lan comportement moom yooyu lay dénonce c'est-à-dire ñoom seen membre yi seen biir bu ñu defee naka sudul noonu ñu taxaw waxante dëgg mais duñ ko def day gis koo xamante ne fii la ko fi Condé def Euh, yokk fi ay mandaawam dem ba coup d'état moo fa mujjee jëlee ñun ñu daw ne pourquoi coup d'état di am or ba Condé doon def waroon naa mën a dem benn signal boo xamante ne moo tax ñu xam ne kii fu mu ñu jëmale du baax mais malheureusement dafa nekk benn syndicat boo xamante ne tant que touché woo seen siège bi ñu toog rek problème du am léegi nag loolu il faut mu touché ko. dut ko baaraam su ko defee ñun ñëpp ñu xam ne tey ji am na benn africain bu bees bu fi nekk am na ay africain yu bees yu fi nekk autant pour moi na Afrique bu bees bu ñu bëgg wala Afrique de l'Ouest bu bees bu ñu bëgg te mën naa am donc loolu man damay encourager bu baax a baax Guy Marius Sagna di ko féliciter ci taxawaay bi nga xam ne am na ko foofu. et par rapport ak réaction bu Adjara Traoré bi mu mel ni comme si elle se sentait visée ou bien euh, indexée. non mais moom pour man yow dañoo ñëw ci penc bi ñuy weer. ne ku moom rek euh, ku mu ni ñaan ku moom xar bi rek nga bàyyi buum bi mais mais nag ça se comprend parce que su fekkente ne moom benn député la boo xam ne mi ngi ci troisième mandat am nekk ci RHDP bi nga xamante ne Ouattara moo ko jiite Euh, Big Togo nekk ci assemblée nationale ba mu am taxawaay boo xamante ne ñëpp xam nañ ne tey jii mu bokkoon ci ñuy tuddee les indisciplinés yi nekkoon ci RHDP parce que bi ñuy dem ci élection locale yi dafa demoon di xëccoo ak nga xamante ne mooy Cissé Ibrahima Bakongo bi nga xamante ne moom moo nekk secrétaire exécutif bi RHDP mu lànkoon def liste parallèle am dem ñu duma ko. léegi ñu boole leen génne après il a fallu ko Ouattara ak ñenn ñi daal di intervenir ba ñu mu ñëwee nangu indiwaat léegi na xam nga bu nekkoon nga ne dañ koo dàq ba indiwaat ko waaw da nga bëgg racheté da nga bëgg racheter wan ne fi nga nekk ba sax lool sax tax na euh, taxawaay boobu mu amoon moo tax ñu jox ko poste deuxième euh, vice président bi nekk fële ci CEDEAO bi donc euh, c'est vrai mi daam boo xamante ne peut être day jàpp ne lépp lu mu am jamono ji vraiment président bi ci tolérance am ak jéggalam mais mënoon nañ koo bàyyi écarté parce que am na benn moment mu metti woon seen diggante moo waral mu am benn comportement bi mais tamit ñoom xam nga booy wax ci président yi dañuy jàppee comme valet au France seen si saa seen président ah. waaw parce que France Afrique dafa may ko symboliser ba léegi Côte d'Ivoire daf ci bokk mooy yoo xam ne boo ne France Afrique rek bu njëkk ba jamonoy fokaar ñoom dañuy gën ne ba léegi ñoom Euh, te loolu depuis Houphouët la ah depuis Houphouët Boigny la intervalle Gbagbo mooy jaar ci diggante bi te gis nañ Gbagbo ni mu poussé après ki nga xamante euh, euh, mhm. xam nañ ne actuellement ñun ñoo jëmmal li ñuy wax France Afrique mhm. alors honorable yaa ngi doon soulever sànq benn point muy wàllum pétrole bi projet Sangomar boobu ni nañ ko ci li nga xamante ni moom mooy la une bi ñu yëg la ni première cargaison bi nekk na loo xamante ni yemm na ba ñu daal di koy distribuer brut ñi nga xamante ne ñoo ko war a jot ah, di raffinerie européen yeeg asiatique yi mais teewul ni euh, ba tey ministre bi ma ngay war di wax ni renégociation des contrat jusqu'à présent jàpp nañ ni daal war nañoo mën a am plus ci pétrole boobu et beaucoup rêvé. d'abord euh, damay dellusiwaat ci façon bi nga xam ne souvent gars yi bu ñu ñëw pour les contrats ni ñuy dikkee parce que dañuy ñëw nga fekk am ay ressources naturelles mais xam lu may wax. amoo xaalis amoo compétence yi nga xam ne mun nga explorer ba développer ba extraire pétrole bi loolu lañ leen njëkk a wax d'abord loolu erreur bu mag la ci ñun loolu sax bokk na ci li nga xam ne moom moo tax retard ci tey jii di exploiter pétrole parce que waroon nañ mun a am pétrole bu yàgg ba nekk ci leneen imaginer nga am ay ressources naturelles loolu koy richesse la xaalis la. yaakaar nga ne amul ay sénégalais yu xarañ yu ngoo xam ne gëm sa bopp rek la ak volonté démb rek ñu ngi nekkoon ak directeur Petrosen Alioune Guèye euh, daanaka noonu la ko gisee mu ne bu fekkoon ne gëm nañ suñu bopp ñun ñooy dem defar contrat ak Sénégal ñun sénégalais bi kon Petrosen sax par exemple dem Europe wuti xaalis ne la ñun mën nañoo gas teen bi nangam nangam nangam waaye déedéet da ngay bàyyi ku mel ni BP wala Cosmos ñëw. gasal la defal la contrat boo xam ne yow la nga ca am tuuti lay doon par exemple boo jëlee l' exemple de G kii euh, Grand Tortue AMEA AMEA imaginel GTA mooy bu nekk mooy bu ñu bokk ak Mauritanie nga xam ne ku nekk dafa war am cinquante cinquante imaginel ñu ne BP la woon Cosmos Petrosen BP toog mu yàgg mu ne dafay génn. BP mu ngi yoroon les 60 pour cent mais BP bi 60 pour cent yooyu buy génn koo xam ne dafa waxoon dafa ñëw la explorer yow yow la waxaloon mais buy génn mais yow dafa war daf la jox sa droit de préemption 60 pour cent yooyu yow dellu si waat yow waaye dañoo bàyyi Cosmos boole li mu amoon ak 60 pour cent yi am 90 pour cent nga loolu duñ ko xoolaat loolu dañ koy toogaat waxtaanee ko renégocier ko. Mm-hmm. su jógee loolu ñu dem ci les coûts du pétrole mooy cost cost loolu la wax cost oil parce que gars dañ naan la la ma ca defoon dama bu ñu demee ba explorer ba jaay ba pare da nga may jox loolu nag 75 pour cent par exemple tey jii boo jëlee Woodside loolu la am ci Sangomar bi nee na dama koy delloo 75 pour cent yooyu mais foog ñu xoolaat ko parce que bu waxee ne man ba may def les projets de recherche pour pétrole bi ak développement bi ba exploration bi def naa ci cent million mais foog ñu justifier 100 millions yi ci lan ak lan nga ko def 100 millions yi dañ ci jënd machine bu jar. Euh, euh, dix millions et ainsi de suite bu fekkee ne dafa ne la machine bi dix millions laa ko jënd et qu'on vérifie sur le marché ne machine boobu jarul dix millions wala joxu la facture bu wane ne jënd na machine boobu kon ça veut que ni moom coût coût pétrole yooyu li muy avancé loolu ak chiffres yi ñu jox chiffres yooyu baaxul loolu jar na nag ñu toog waxtaanee ko donc soo déggee tey jii ministre bi di wax ne nañu renégocier les contrat c'est par rapport à ça yooyu dañ ko war a toog ñu xoolaat ko. xëy na suñu dee négocier dina am gain boo xam ne ci coût pétrole bi ñun dinañ ko ci mën a am yokk ci ñun loolu moo tax nit ñi càmbar boobu lañ càmbar ne ne dañ fexe ba vraiment négocier renégocier les contrats toog lañ ca war a mën a am yokk ko ci renégocier la waxtaan la waxtaanaatal la waxuñu nag dañuy ñëw forcer ne force force lii mooy am waaye dañuy toog waxtaan ne ko ah luñ ci mën a luñ ci mën a jëlee rek ñu jëlee ko ci ñoo xam ne lii mën na dugg ci gafaga Euh, budget bi parce que ci budget bi li pour cent yi dañ ko yóbbu ci budget bi lii ñu donc fonds de stabilisation lii ñu donc fonds intergénérationnel pour que vraiment carburant bi mun ñu njëriñ beneen bi moo damay dugg tuuti ci transition yi nga xam ne euh, européens yi bëgg nañu ko exiger parce que européens jël seen tasse de café naan ko moom jeex mu ne ñun nañ si roté suñu tasse de café ñoom exploité nañ gaz exploité nañ pétrole boo demee seen kër yi sax gaz dafa am tey jii ñu ne ñoom ñun ñu am gaz ñu am pétrole ñu ne noonu nañ def transition énergétique na parce que dañoo war a préserver environnement bi xam nga pour lutter contre l' de serre parce que couche d'ozone bi mu ngi yàqu léegi waaye mais man ma ne ko man ma ne ko man wala man sénégalais bi ma ne ko mais attends man gaz bi muy gaz to bi man nu ma bëgg jël gaz bi togg ko mu nekk électricité mu jaal ko ci suñu centrale électrique mu dem ci village yi nga xam ne amuñu électricité on parle de 4 millions de sénégalais yoo xam ne amuñu électricité pour que ñu mën ko am pour que sama yaay bi nga xam ne ba léegi matt bu amul mat lu togg mu mun a bénéficier wu ci gaz bi parce que am na sama yaay boo xam ne boob ba léegi xaw ma nag xam ngeen lan mooy ndeef xam nga ndeef mm-hmm. xam nga ndeef <laughs> moom waaw mooy les excréments de vache. Ah, ah. nga xam ne dañ koy bàyyi mu wow. ñu ngi koy weer ba moo kong di ko toggee ay añ di ko toggee reer yooyu loolu muy am ba tey léegi nag yàlla nag la vraiment été clément avec nous indi ñu pétrole indi gaz ñun ñu ne bi nag may leen ñu ñu exploité ko waaye ñu ne nañ def transition nañ dem ci naaj bi nañ dem ci ngelaw li pour wut mais ñun industrialisation lañu bëgg a dem ñu wax ne bu ñu béyee ba pare lu ñu béy dañ ko bëgg mu nekk industrie ñu transformer fii lekk ko fii ku bëgg a industrialiser naaj bi mën na laa defal énergie bi nga soxla. naaj eh, ngelaw li mën na la defal énergie bi nga soxla déedéet ñoom ñu def ba am ay usine ak yooyu nañ ko def bu ñu bu ñu demee ba ci kanam ñu def ce qu'on appelle une transition naaj bi ngelaw li mais également boole ko wàññi xool gaz bi ni dellu ci naaj bi. waaw loolu bu ñu amee koppar a xëcc naaj a xëccee su ñu amee koppar ngelaw li ni ko war a mën a feccee donc ñun transition boobu la ñu parce que y a projet JETP foofu la ñuy bëgg a kepp parce que projet jet bi foofu la ñu bëgg a dugal seen xaalis parce que moom mooy transition énergétique bi ñu bëgg a mhm. parce que ñoom dañu wax ne Sénégal na na na exploité tuuti ci pétrole bi ak gaz bi mais na mhm. gën di exploité euh, nu waxatee naaj bi. Mhm. ak ngelaw li. donc loolu lañ dànguwul en tout cas de manière ramassée euh, Sénégal